ñu koy gis mbër bu war a bëre meeru ko xam déplacé wu ñëw taxawu ko nii yaakaar naa ne c'est une première kon ñu ngi koy jaajëfal di ko magnifier loolu yëpp yaakaar naa bi ñu am te yaakaar ne tey làmb ku ne xam na ne euh, facteur de développement la nekk secteur d' activité boo xamante tey jeunes yi si àddina wu dafa bëri gis nga grand xës nee na un million jox leen ah, joxoon leen tamit oto si li ma wax ah, pour li ñu préparé yaakaar naa ne ak salle de musculation loolu yëpp lu am am solo la kon ah, monsieur le maire ñu ngi koy jaajëfal di la ñaanal yéen bi woyof ah nga nekk maire ba doyal Zambala nag dañ lay nuyu di la ziar waaw salaamaaleykum mbooloo mi hmm. gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur hmm. damay sant waa mbaaw gépp gépp gépp gépp hmm. waaw di santaat waa mbaaw yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di dolli di santaat waa mbaaw di sant sama yaay bu baax a baax a baax di sant sama papa bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñëpp di nuyu mbooloo mi teew yëpp assistant bi yëpp di sant monsieur le maire Abdou Karim Sall waaw di ko sant bu baax a baax a baax a baax parce mu taxawee yàgg na depuis boobu ba léegi mu ngi si ñun moom préparation yi ba tey la dernière semaine ñoo ngi si dernière semaine combat bi fu mu toll nii ay jour moo des waaw di ñaan yàlla may ñu ndam mu nekk nag sa combat capital waaye li ma laaj mooy la Zambala bu rëy jël at jël Boy waaw Boy Faye lamb moom a dugal ci moom daanaka suñu combat waroon nañ ko bërëb bu yàgg ma moom waaw mu ngi topp presse bi di wax boobu ba léegi maa ngi door a def sortie lamb ji mu taxawee ba léegi def na sortie ci site yëpp ci internet yëpp mais man maa ngi door a def sortie maa ngi lëkkoon di liggéey parce que dañ ma sas parce que boo ñëwee mbaaw tey xam ne lii fi am nii sas nañ seen doom te yan biñu ma yéen nii dafa diis comprendre bi ma nekk say réseaux sociaux nag wax ak Boy Faye Boy mu ngi wax naan palmarès boole ñu ma ak moom ñi ma bëreel bëreel ak ñoom ñi ma bëreel bëreewut ak ñoom comprendre ah. dara dugalu si moom lamb moo ma dugal ci moom moom waroon nañoo bëree depuis daaw combat bi taxaw woon na si moom la yàqoo moom moo taxawoon combat bi si moom la yàqoo te yàlla dogal na am nañ combat le 11 incha allah di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndaw. moom nag nee na jours yi ngay am jàmm ñëw rek la bëgg si yow parce que nee na lépp luy am si stade sa arène nationale incha allah rabi moom moo koy def dina la duma dina daan nga ànd waaw Boucar Boy Faye bu bëggee ku mu na dem xooli xale yi jàngi jardin mu jëndal leen suuf si jëndal leen suuf si jox leen bu bëggee ku mu na dem xooli xale yu ndaw yi mu jëndal leen comprendre man Boy Faye faalewu ma ko si bëre faalewu ma ko si xeex faalewu ma ko si ambiance faalewu ma ko si mobilisation day wax rek. dégg nga ma ne de nga ne faalewu ko. faalewu ma ko si bëre. faalewu ma ko si xeex faalewu ma ko si mobilisation faalewu ma ko si ambiance lamba ji bu soobee yàlla li may neex moom maa koy def soobee suñu borom côté doole ñu gis ne Zambala daa waaye da mel ni ku wàññi waa si combat bi lu xew Zambala quoi macha allah sëñ naka nga ko gisee yow bi nga gise ay vidéo parce que xam naa ne seetaan nga ay vidéo ak yow tamit li nga ci combat bi. Bougar yow fekk nga ma fu ne xam nga ma bu baax yow fekk nga ma fu ne fekk nga ma si àll bi fekk nga ma Dakar fekk nga ma fu ne man ku xal jaaxaluma ñi may daan ñoo ëpp booy fay ñoo gën a diis fuuf. bëre dóor lañu wax de. bëre dóor maa ko bu bëree bu bëree bu bëggee na ñëw ñu mbapat bal bi ngi ci ay camp bu ñëwee ñu mbapat ma jàngal ko bëre bu ñu xeexee ma noxo ko ba mu Boucar Boucar Boucar Sambala daa mel ni am na loo yaakaar ci combat bi nag Boucar boo xoolee lii man bu ma gisee mbooloo mi nii mbooloo mi ma leen gisee bu ma gisee mbooloo mi nii ma siggee gis leen sama yaram day daw damay tiit billaahi wallaahi taala ñii dafa duma leen lu tax ñu ñii billaahi wallaahi billaahi doole yemu côté mobilisation monsieur le nee na moom moo restitué yëpp looy wax ci loolu. billaahi doole yemu may leen ñuy yeggali rek Medina doole yëmbul Aïcha say say say supporter sax dafa mel ni bi dafa yàgg Boucar dama bëre sama dernier combat dama bëre sama adversaire ma dóor mu daan boobu ba boo fay parce que ne ma xeex ak moom bu dee xeex xooluma libéré samay supporters waaw. monsieur le maire nee na moo respecté yëpp looy wax ci loolu. damay sant monsieur le maire bu baax a baax a baax. Boucar yàgg nga dem open press yàgg nga dem lamb li nga gis tey nii mosoo kaa gis mosoo gis mbër muy bëre maire ko xam ñëw taxawu ko ñëw si open press bi wax ne jënd na bii yëpp loolu mosoo kaa gis mosul am c'est am mosul am. dañ leen a dañ leen a bu ko temps bi mayee ñëw seetaan si salle bi nga bëgg a entraîner nga dem entraîner loolu c'est c'est une première mu ngi door a am. macha allah di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla. gars yi tàcc leen loolu supporteru Zambala tàcc leen monsieur le maire. Boucar maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant waa Mbao yëpp di sant assistant bi yëpp di sant mbooloo mi yëpp yëpp yëpp di sant waa suñu waa équipe bu baax a baax a baax. wooteel soo paree wooteel. waaw bés bi dañ ciy woo dañ ciy woo suñu grand yi nga xam ne nii ay champion lañ si dëgg si mel ne suñu grand Ama Sène gis nañ ko léegi suñu grand Jeylaani suñu grand Jeylaani damay insisté si loolu suñu grand Jeylaani Pouy comprendre nga Jeylaani Pouy suñu grand moo ngi Suisse waaw AC Gloire bu la a waaw bu la a nga def faaxamaan dañ koy woo si bés bi bu baax a baax a baax a baax mu ñëw taxawuñu xam ne rakam moo mu bés na ñëw taxaw si bés bi di sant suñu grand Ablaye Pouy numéro 2 bu baax sama waa écrit maa ngi sant ñëpp maa ngi sant père Dégol di sant père Xës père Lim père di sant Boy Niang bu baax a baax a baax préparation bi moom ñoo ko bokk ba man sama préparation jiyee na ba sama moo des di ko ñaanal tam bu baax a baax waaw. ayca ñoo ngi lay jaajëfal di jaajëfalaat encore rek le maire Karim Sall ayca jërë ngeen jëf.